Pape Demba bi tey mi nga xam moo jiite Senelec ak euh, kuréel yi fi ne te wéy ay jëfandikokat euh, ñoom nag ne nañu fësal nañ nag mboolem jafe-jafe yi nga xam ne doon dund moom Pape Demba bi tey indi ci ay wax ne fan yii di ñëw dina am ndaje boo xam dañ koy seq waa CRS maanaam mooy comité bi nga xam ne ni mooy fixe njëg yi su ko defee ñu jéem a xool njëgu courant bi naka bi nga xam na te mooy Ousmane Sonko bi nga xam ne tey jii ci lay ci la koy waa Sénat de létt ñu firi ko mu soxal euh, saisi gi nga xam na leen ko euh, mu jëm ci fiche de parrainage bi lee waaye ëllëg intan incha allah rabbi euh, dana fas yéene euh, cour suprême dana àddu jëmale ko mm-hmm. ci recours bi nga xam defoon na ko jëmale ko ci mbiru Mame Mbaye Niang yéen kaay ci loolu mu soxal ka nga xam moo nekkoon njiital réewum a Mauritanie di Abdoul Aziz procureur daal sàkku nañu tëj ko ñaar fukki ati kaso noonu la ko yéen kaay gii fa ko tëjee xëy fësale yéen geneen Sud Quotidien bu waa Sénélec mm-hmm. ak kuréel ñoom nag nee Euh, yokkute gi daal dafa jéggi dayoo ba tax ma waa Senelec wax ne ne euh, lépp daal lu ñu mën daañu ko def ba wàññi njëg yi lee ndaxte ab ndaje daañu ko fas yéene amal dox seen diggante waa commission de régulation du secteur de l'électricité ñu gën ko xam ci CRS euh, su ko defee daal ñu jéem a xool naka la ñuy def ba wàññi njëgu courant bi lee noonu la ko yéene gii di Sud Quotidien xëy fësale enquête lu mu ñëw enquête dafa sol dafa jël gaal mm-hmm. dugg ci géej gi dem doxante ji naan yaakaar teranga loolu nag fu mu toll dafa am lu doy waar lu ci am ndax ci ñi waa BP mhm. dañu jël dogal kon fas génn euh, ci tool yooyu la loolu nag doon loo xam lu jaaxal yéen kaay gi di l'enquête ba tax tey ji mu xëy am amal ci ab taxaw seetlu yéen kaay bi di l'info yéen ne waa FMI ña ngay delloo njukkal di kañ Sénégal dinde ci wàllu croissance ndax nee nañ Sénégal jamono ji boo xoolee ci Afrique subsaharienne mhm. moom mooy réew bi nga xam moo fi jiitu ndax bu fekkente ne Sénégal mu ngi toll ci huit mhm. euh, kon ñu ngi toll ci quatre virgule et ci wàllu croissance loolu nag doon loo xam ni tax loolu tax kon waa FMI di delloo njukkal Sénégal di ko kañ mhm. ci koom-koom gi nga xam ne dafa wér péng noonu la ko yéene kaay gii di foo xëy fësale euh, le mandat waaye yéen kaay gii di la mandat xëyee dellu siwaat ci croissance économique fii ci Sénégal Moustapha Ba ma ngay persi di rassuré euh, Sénégal daal koom-koomam fu ni jaar na yoon ma nga war péng noonu la ko yéen kaay gii di la mandat xëy fesal leneen tamit loo xam yéen kaay gi xëy na ko fesal Abdoulaye mm-hmm. te mooy Ousmane Sonko bi nga xam ne jamono ji ma nga ca coma yóbbee maître Ciré Clédor Ly doon kenn ci ay avocat yi ak ay di wër réew mi yëpp ngeen ñu taxaw taxaw sàkku ñu bàyyi ki nga xam ne Ousmane Sonko lu ko mooy kat mhm. musiba dina am noonu la ko yéen a kaay gii di la mandat xëy fësale yéen a kaay bi di gii di critique ne FMI signé na ak ab accord maanaam ab dëppoo ak nguurug Sénégal mu ngi toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn milliard ci suñuy koppar donc euh, Dakar Times yéen a kaay gi dox na ci diggante Sénégal ak FMI FMI fas yéene na décaissé lu ci toll téeméer ak juróom-benn fukk ak mm-hmm. nga xam ne Sénégal jël na ko bu ñu sukkandiku daal ci waa FMI nee nañu euh, dara nekku ci ah parce euh, mm-hmm. ko yéen kaay gi di Dakar Times moom la FMI euh, baaxee Sénégal si jamono yi la njiite réew ñoo koy xaar fële ci Bruxelles ngir fekkee fa forum Euh, sur l'initiative globale Gateways noonu la ko yéen a kaay gi di la Soleil xëy fësal. yéen a kaay direct news yéen a kaay gi direct news FMI ma ngay delloo njukkal Sénégal di ko kañ ci seen koom-koom gu wér. noonu la ko yéen a kaay gi xëy fës ab mission nag moo fi amoon moo fi newoon euh, ñi ngi fi nekk nag li ko dalay fukki fan ñaar jàpp ñaar fukki fan ñeent yoru octobre maanaam daal seen mission jeex na mm-hmm. euh, démb nag lañ ko doon mandargale ak ndaje mu doxoon ci diggante taskatu xibaar yi foofii nag moom ki nga xam moo euh, jiite délégation bi ba mm-hmm. <coughs> nga xam daal Sénégal daal jamono ji seen koom-koom wér na pég noonu la ko yéen a gi direct news xëy fës leneen bi nga xam daal ñu ngi yëkkay ñu maanaam ñu ngi becc ab communiqué di xamal askan wi ne nañu def attention ci DG ndax gis nañ dañ leen jox ay clé USB yoo xam bañ ko jotee dañoo gis ay njuumte yoo xam ne bu fekkonte ne euh, mbir yi suba suba la kon dañuy éliminer euh, waa coalition gëm sa bopp ci euh, ci wàllu parrainage jàpp ne donte la indi nañ si ay jub ay ci askan yi gën a tey bu baax a baax ci waa DG noonu la ko yéen kaay ci loolu xëy dellusiwaat ne waa gëm sa bopp détecté nañ ay anomalie ci fichier électoral bi donte la waa désiré ñu nga koy corrigé waaye taxul seen xel dal ñoom daal la ñuy sàkku Sénégal daal mooy ñu gën a mën ñu gën a doon ay njaacaar noonu la ko yéen kaay gi la tribune xëy fesale détention Ousmane Sonko boobaak léegi toll naa ay fan Ousmane Sonko jamono ji maa nga ca coma yóbbee maître Ciré Clédor doon kenn ci ay wokkam yi ko ay daal di sàkku est-ce jóg wax ak président Macky Sall mu bàyyi ko lu ko mooy kat mun na xaar dal ci kaso bi noonu la ko yéen kaay di la tribune xëy fësale yéen kaay bi di 24 euh, euh, ci kaso bi